ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp tàmbalee ko ci sëñ Muntaxa muy sëriñ Touba ak sëriñ Bas mi mi ñu booleel ci liggéey bi ñu ngi ñëwoon tey jii ngir sàkku si ñaan sàkku si ñaan ak ndigal pour tàmbali li ñuy wax mbeddu 30 bi defar ko ci ndigalu suñu ay kilifa ñi ñu fi yabal nañu pour ñu def liggéey bi liñ ci jublu tamit mooy ne liggéey boo gis ci affaire tali dafa am loo xam ne nii moo koy jiitu muy étude technique étude technique yooyu nag bëgguñu woon ci def ci dara te amuñ ci ak ndigal ak ñaanu sëñ bi loolu yàlla defal nañu tey jii ñu defal ñu ko pour ñu tàmbali étude technique yooyu étude technique yooyu nag dinañu war a jëlal lu tolloog ñaari weer bu ci yàlla àndee euh, bu nga xam ne nii treize kilomètres yi ñu fi war a def mooy mbeddu trente bi ñuy wax wax nga ko léegi sànq buñ ko defee ba pare dina ñu tax ñu seet ñu xam fan la ñuy teg ci ñu tànk ak ban façon liggéey lañ koy liggéey boo xam ne dina mucc ayib maanaam ci wàllu ndox yeeg ci wàllu yoon weeg ci wàllu sécurité beeg yépp mu doon liggéey bu mucc ayib baax wér te amal njariñ aussi nit ñi ndax liggéey bu am njariñ dina tax accident du bari euh, dina am sécurité am lépp liggéey boobu nag bu ci yàlla àndee dañ ci ànd ak entreprise bu ñuy wax CSE muy entreprise du Sénégal bu ñëpp xam xam leen ci liggéey tali bu baax a baax a baax ñooñu nag ci ñoom lañ ciy àndal pour def liggéey boobu bu ci yàlla àndee li ci des nag mooy bu dee lancement officiel travaux yi bu soobee yàlla kooku moom kilifa gee ko moom waaw kilifa gi moom mooy seet ak waa Touba kañ lay ñëwal boppam lancé officiellement liggéey yooyu mais li ngeen di xam daal mooy leen liggéey bi tàmbali na parce que étude yi ñuy def nii ci liggéey bi la bokk waaw moo jiitu nag bépp balaa benn engin di taxaw balaa benn engin di def benn mouvement lii ñu def nii moo koy jiitu waaw loolu nag ñu ngi ciy gërëm di sant Cheikh Bass ndax yàgg na ñoo taxaw yàgg na jàppale yàgg naa ànd ak ñun lii firnde bi mooy Ila Touba taxaw biñ ñu ci taxaw ci ndëgalu sëñ Muntaxa si sëñ Touba sëñ Cheikh Mati lay d'abord après mun taxa mu sëñ Touba ndigal sañ Touba daal mhm. nim ñu ci taxawoo gis nañ ko ñun tax na liggéey bi yomb tax na délai yi wàññeeku lu ñu waroon def juróomi at ñu def ko ñetti at xam nañ ne du ay engin kese am na taxaw woo xam ne diggante nit ak nit la boo xam ne ni taxaw nañu ci ba lii ñu sumboon yëpp yàlla dimbali ñu ci yegg teeg salaam loolu laa laa laa ci bëggoon maa ngi ànd ak samay samay euh, naataangoo ñoo xam ne ñoo bokk liggéey bi ànd naa ko aussi ku ñu wax Balla Gaye nga xam ne moom liggéey bi moo ko war moo koy suivral boppam nga xam ne nii moo fi nekkal agirut guddeeg bëccëg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 E, fi tiwo yi di jaar fi ñu war a jaaralee courant bi e, téléphone bi ndox mi ñu seet tamit yooyu yëpp ba mu féete boor ñu doog a tàmbali nag. at ak juróom ci la bokk. tey ci la bokk tey ci la bokk. Mm-hmm.